salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر jërëjëf jërëjëf sëñ Basiru ñu lay ziyaar di la nuyu di la baalu àq ndax niñ fi ñëwee dëgg la dañoo tollu ci màggal sëñ Touba liggéey lii ba Sénégal yëpp daje fi yàlla nag dimbali ñu ma ñëw ànd fii ak njabootu président makisal ñii ma nekk ak ñoom ci gouvernement bi ñii nekk ci assemblée nationale ñii ma séq ak ñoom langue politique ñii di ay xarit ñoom ñëpp nag li leen yëkkati mooy ñëw ziyaare si la ñu bëggoon mooy ñenn ñi sax nuyu sëñ mu la ñu bëggoon ñenn ñi li bëggoon mooy ñëw gis la loolu yëpp yàlla yombalu ñu ko tey sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel ci màggal bi président ñëwoon fi fan yi passé waaye doyalul ci Touba yéeneem ci Touba des lu baree bari donte def na ci lu bari mi ne ma àndal ak membre gouvernement bi ñi nga xam ne ñu ngi Dakar ngeen dem santal ma sëriñ bi ziareel ma ko ne ko yéene bi nga xam ne am naa ko ci Touba bëgg naa ngeen xoolal ma li ma ci tàmbali fu mu toll digaale yi ma ci waxoon fu ngeen ci toll li nga xam ni sëriñ bi bëgg na ko bu ma ko fàttee wax it leen ko gëstu bu ngeen ko xamee ngeen defal ko ko yéene mënut a weesu ñu ñëw fi nag xool la nga xam ni dëkk bi soxla na ko fi mu nekk nii ñu ngi ci nawet màggal bi fii ak juróom-ñaari at yi di ñëw màggal yi am yëpp ci nawet lay dal lay dal ak fi Tuubaa nekk ak ni mu bindoo ñaari at yi weesu yëpp président Macky joxoon na ordre gouvernement bi ñu fiy liggéey liggéey bu mucc ayib bi ci mujj muy assainissement bi nga xam ni am nañu yaakaar ci jeexantelu at bi liggéey bi dina sotti gouvernement bi def na ci ñaar fukki ak juróom xam nga tuuba yàlla daf fi def mu naat boo gasee tuuti rek am ndox moo tax bu tawee rek day gaaw a taa daaw ak ren gas nañ fi ñaar fukki forage yoo xamante ni day ŋàcc ndox moomu ndax bu tawee ndox mi mën a jàll loolu ci wàllu assainissement la ni ngeen ko xamee bi président Macky Sall ñëwee ci bopp réew mi dafa am plan ba mu defar plan bi ci juróomi at yu nekk la 2014 la ko tàmbali 2018 ñu natt ko bii ñuy def nii dinañ ko natt 2023 bii ñu nekk ci jeexantu at bi ci lañuy ñu war a toppatoo la nga xam nii moom mooy liggéey réew mi ci juróomi at yi di ñëw mu xamal ñu ni nañ ñëw xool fi liggéey bi tool am na loo xam ne gouverneur wax na ma ko ci léegi waaye bu bësu tey bi passé dinañ fi ñëwaat ndax Touba moom loo fi def rek dañ koy waxtaan ak sëriñ bi sëriñ Mountakha nag ku ñëw dina laaj sa xalaat waaye yéene bi mu am ci tuubaa ak xam-xam bi mu am ci Touba te ñu mën cee seede lu bari xam nañ ni li mu soxla ci Touba ko gouvernement bi defalee dana baax lool ci askan wi incha allah lii nga xam ni Touba yitte woon na ko donc ci wàllu assainissement liñ ci war a def yëpp gouvernement bi président Macky Sall neen nañ ci taxaw leneen li nga xam ni gis nañ ko. pompiers ni fi ñëwee ànd nañ fi matériel bu bees tàq citerne yi ànd nañ fi ñaar fukki citerne yu mucc ayib yu bees tàq yu mag yu tegu ci liñ fi daan andi Ofor andi fi téeméeri citerne fan yi bi ma fi ñëwee ci ndaje bi ñu amoon waxoon nañu SONES nañu fexe canalisation tubaay yi seetaat ko ba nga xam ne ci jamono màggal nga xam ne nit ñi dañuy yittewoo ndox ndox bañ fee manqué am nañu yaakaar ci li nga xam ni wax nañu ko ba fi ñu toll nii yëf yi tane na bu baax wax naa gouverneur léegi ci oto bi na ci bàyyi xel lool ndax ci jamonoy tàngaay lañu nekk nit ñi war a yittewoo lu mel noonu pour ndox moom dara bañ fee manqué ci wàllu courant it bi may ñëw laaj na ministère de l'énergie loolu yëpp it ci ndigalu président la ndax dafa ma ne boo fa demee di premier ministre Sénégal di fa daje fexeel ba doomu Sénégal yi kenn bañ faa loru kon ministre yëpp direction yëpp ku ci nekk laaj ko yow ci sa bopp nga vérifier xool ndax la nga xam ni am naa ko yéene ndax la ma leen sant def nañ ko ci wàllu courant bi ma leen laajtee nee nañ ma lañu waroon def yëpp def nañ ci lu baree bari bu ñu deful léppi waaye liggéey bi du jeex ndax sëñ tuubaa da ko liggéey tuubaa di màgg bés bu nekk looloo tax dina am yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko am pour mën a topp seeni ndigal fexe ba tuubaa la ca war yëpp ñu def ko nu mu gën looloo tax ci wàllu sécurité ren yokk nañ ci lu bëree bëri ci wàllu paj bi aussi ministère de la santé wax nañ leen lu mu gàtt gàtt nañu def téeméeri point yoo xamante ni dinañ ko tas ci biir Touba pour kenn koo xam ne soxla nga paj nga mën a am docteur ci nu mu gën a gaawee. bi may ñëw léegi maa ngi laaj gouverneur mi ne ma garab yi aussi lu bari teew na sëñ bi nag man dam lay sant man sam bopp ndax yàlla dogal na it suñu diggante yàgg na boobu man de cër yi ma dégg yëpp dégguma ci woon benn ngay ku baax ngay ku ma jàppale ngay ko si koo xam ne dag may conseiller saa su ne bariwul ma yëkkati dara te duma ci waxtaan ak yow kon sëriñ Bassirou bu ma yàlla mayee ma ñëw toog fii toogal fi président de la république dinaa jottali santam dinaa jottali gërëmam ndax xam naa seen diggante waaye li nga xam ni dox na it suñu diggante baax na it ma wax ko ndax yiw rek nga ma ëmbal te yàgg na lool lu mu gàtt gàtt gàtt mën na fukki at ak juróom wala lu ko ëpp kon yàgg na cër yi ma am yëpp dégguma ci woon benn kon sëñ Basiru yàlla na la fi yàlla yàggal lii nga xam ne ñu ngi koy def ren yàlla nañu yàlla may ñu teew fi ay at yu baree bari yàlla nañu yàlla yokk ñun ñëpp. awma lenn lu may wax lu dul sant yëkkati ay kàddu sax ñëpp di ko dégg ci sa kanam diis na ma ndax bari na bu ñuy waxtaan maa yow rek ay toog waxtaan ba nga xam ni tey lii nga xam ni àdduna andi na ko ba mu war a toog fii waxtaan ak yow ba sax dem di la gërëm dama bëgg nga baal ma ci àq Cheikh Ibrahima mi toog sa wet mën naa seede lu baree bari ndax defe naa ni musuma seet si sëriñ mun Muntaxa bi ma koy tàmbali seet ak léegi mën na fanweeri at te jaaruma ci Cheikh Ibra su ma fi ñëwee bu ma wooyee sëriñ bi sax mu ne ma Cheikh Ibra nekk fi dama koy ne ah sëriñ bi xanaa nag may bàyyi rek ba Cheikh Ibra ñëw ndax yàllaa ma booleek moom te loolu yàgg na Cheikh Ibrahim santal leen ma ko bu baax a baax xam naa li kàddu yi may yëkkati sax di diis na ko lool ndax gënalu ko waaye am na lu ma xam seen diggante mën ko sedde ñi fi ñëw nag donte ay membre gouvernement lañu ñenn ñi waaye ñëw ñëpp ay taalibe la mën naa seede ñi fi ñëw ñëpp am nañ ci yow cofeel ñoom ñëpp bi ñu gisee sëriñ bi it ànduñoo nag seen sago bu ma sañoo it sëriñ bi wéet ku nekk waaye bi ma ko seetaatee bu baax dama xam ne loolu donte sëriñ bi may na ma ko waaye jaaduwul waaye ñu ngi toog ci sa pegg xam naa ni bu buñ ma bàyyi rek du ma damay xaabaabal ni koy olof yi di waxee te gënul te du teggin waaye kontaan yow rek bëgg ci yow ndax diggante bi yàgg na diggante bi yàgg na jàppale bi yàgg na conseil yi yàgg na yal na leen yàlla fay sëñ Touba bi nga koy defal yal na la fayal boppam kon may sant askan bi yëpp di leen gërëm jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ministre premier ministre bi ne mi ngi yëkkati nuyoo ne di ko teg ci loxol premier ministre Amadou Ba. mbooleem délégation bi ma àndal lépp ne di ay ministre ak i directeur ak i wëllëreem ne xam naa bu ko limee day juum rek waaye bu la tuddee ne rawatina la mu séq ak yow ku ci nekk la mu séq ak yow jàpp na ko kon ne sëriñ bi ne mi lay delloo nuyoo bu baax ci ndigalu cheikh Mouhamadul Muntaxa ne lii kat cheikh Mouhamadul Muntaxa moo ko ko sant waaye ne du kaddu yi boppam sëriñ bi ne mi ngi lay nuyu bu baax ne te di la sant Amadou Ba di la gërëm di la yóbbante nuyoo ci sa kilifa président Macky Sall ne barki président Macky Sall ñëw na fi. ci sëriñ bi nee yëkkati fi kàddu yu rafet rafet nee sëriñ bi tontu ko ci jëf ju mag ji nga xam ni def na ko mooy xam ni nii mu doxale ci réew mi ngir indi jàmm sëriñ bi mi ngi lay yónni ci président de la république ak cant ak ngërëm ndax diiru mu di fi ne ànd naa moom ci àndin wi gën a rafet lépp lu sëriñ bi yëkkati dana ci def lu mën def ci lu mënul ne président Macky Sall lépp lu ko sëriñ bi wax ci njaboot bi dana ca góorgóorlu ba def ca lu mën ne bu dul loolu lépp it nag cofeel gi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci yow ci moom président ne président Macky Sall it am ko ci sëriñ bi ne loolu doy na sëg kon loolu la ñuy jiital xam ne daal sëriñ bi sant na ko gërëm na ko ci jëf ji nga xam ni président Macky Sall jëf na ko ci dëkk bi la ko sëñ Mountakha waxoon rek ci saal bi la ko waxee woon ni ko jëfal président te bul gestu ndax sëriñ Bamba ngay jëfal jëflante woo fekk kenn ku dul sëñ kon loola teg na ci bëtam ne bi ñu jël édition bàyyi sëriñ bi wax na ko ci làmmiñam ci téléphone mu toog muy wax ak président mag Sall mun ko dénk ga ma dénkoon sëñ Tuuba moo la may mu gu rafet gii nga am kon yàlla na ko yàlla gën a dimbali ne président Macky Sall li mu jëfal sëñ Bamba itam yàlla ko sëñ Tuubaa fay ci àdduna ak ci àllaaxira ne di leen ci taxawaay bi ci màggal gi ne ministre ñëw nañ fi ne ministre intérieur Antoine Diome moo ko doon coordonné waaye yaa nekkoon kilifaam yaa doon jokkoo ak ñoom ñëpp ak ministre yëpp di laaj lu ne ci màggal gi fu mu toll waaye mu dina seereel mbooleem lu état bi mënoon rek def na ko ngir bëgg màggal gi bañ benn gàllankoor ci fànn yépp ndax ci wàll courant def nañ ci lu baree bari tali bi dëkk yépp a yàq woon ndax ñetteet yépp defaruñ ko ba noppi nab bi ni mu yàq tali yi dafa doy waar waaye li cëpp defar nañ ko gas nañ fi ay forage yu bees ñi daa yëngu ci assainissement bi ñu ngi ci liggéey bi kon li ñu mën lépp daal ñu ngi lay seereel ni ci turu sëriñ bi def na ko la ca des nag Touba moom daa rëy day dëkk boo xam ni ginnaaw ba ndakaaru jàllee mopp Sénégal te ñu yor assainissement bi tey gëstu wax nañ li tax mu yegg fa mu jëm faaw gàtt gàtt deux cent daal dana ci duggaat kon dëkk bi nee noonu nee da koo jiitu lu bari ndax ndox mi moom yaakaar na ni ñëpp ko dundandoo tey néew na mbedd mooy romb ba noppi jàll loolu nag kon liggéey bu rëy rëy la boo xam ne daal moo des ci kanam waaye li ngeen ci manoon def ngeen ko te nabbiit mi ngi yokk nag yokk gu mittee mitti firnde ji rek mooy kër sëñ Tuubaa gi nu ne fee ñu daa defee cérémonie officielle ba defar nañu baas ba ba def décoration ba mu yegg waaye biig bi mu tawee ndox mi tàmbalee génnaat ci biir suuf si ba ca buntu kër sañ Fallou fa la ñu koy mujj defee kon nag loolu yegg na foo xam ne liggéey bu réy la boo xam ne bu ñu ko gàttanduwul dana doon yàqu-yàqu bu mag te fii musu fee yegg ren la fi yegg si boo demee kër Cheikh Abdoulaye bâtiment bi sëñ Abdoulaye nekkoon. nga xam ne fa lañu ko mujj seere ndoxum kesal la léegi bâtiment ba ndox mi xaw na koo nangu boo demee kër sëñ caaliwu noonu boo demee kër sëñ ceex gaynde faat ma noonu kon daanaka jumaa ji rek la fi bàyyi te biir armeel ya bañ fa defagul forcement rabattement dem na fa am barab yooyu kenn mënatu faa denc daaw jéeg mooy bi ko sëñ bi yónni ci président Macky Sall loolu yitte yu jëmp la ci dëkk bi ba ca desit mooy lu mel noonu rek kon daal cant rek di leen gërëm leen lan leen di def beral la nag premier ministre sa cantu bopp ne waxul diggam ak yow sax waaye président daal ki nga xam ne kii mooy ministre Amadou Ba sa diggante ak sëñ Mountakha ne moom mi de xam na ci lu bari nee lu ko ci sëñ bi waxut sëñ Cheikh Ibrahima Mbacke wax na ci lu yàgg loo xam ne du tey du démb nee sëñ Mountakha am ci Amadou baax ak cofeel cofeel koo xam ni boo ko doon natt doo xam fu mu yem lu yàgg yàgg la mu wuuf la jàppee la doomam jàppee la taalibeem jàppee la njabootam. sa mbir ñor ko lool ñor goo xam ne gi yërmande ci sëñ Muntaxa am ci Amadou Ba neexut a wax ci biir mboolo loolu doy na sëg ki fi nekkal sëriñ Tuubaa ku am loola ca moom loolu doy na sëg mais moom nag Cheikh Madul ne diggam ak yow ne li nga wax fukki at juróom ëpp na ko ne 2003 la ma yàlla booleeg moom boobu ba nëgën ñaar fukki at du benn bis waaye mosumaa gis genn soppiku Cheikh Amadou Ba nee ak fonkeelam Cheikh Amadou Bachir ak ko jàppam ak bi nee yow loolu la la yàlla bindee nee mbooleem ku la xam rek xam na ni ku yéwén ku yéene ñëpp am ku yéene ñëpp jàmm ne nit ñi sax jàpp nañ ni denc nga alal waaye jàpp naa ni dencoo ko ndax loo yor jox nga ko nit ñi na ma dikk Ndakaaru lu mu gàtt gàtt faw mu ñëw fa benn yoon wala ñaari yoon Touba moom li mu fiy ñëw di ko seet si nee bu ko doon xayma mu nuyu su ko takk nekk rek fekk nga ko fa ne yitte joo ma sa dégg ba ngay nekk directeur domaine ak ba ngay nekk ministère des finances ak ba ngay nekk premier ministre yitte taalibe joo dégg da ce ca def yitte def ca la nga mën xam na sa yéene nag ci Tuubaa xam sa yéene ci sëriñ bi xam sa yéene ci nit ñi kon ngi lay sant ndax président Macky Sall ci boppam xam na diggante Cheikh Mamadou Bachir mii ak premier ministre Amadou Ba ndax ay yoonu yoon yóbbante na ko ci moom kon xam na seen diggante lañ seq seen ñaar ñaar dara ump ci président Macky Sall te it xam na ni ku mën a rafetal na seen diggante ndax yàlla def na nekkoon na ci nguur ba génn ca. lu mat ñaari at walla lu ko te nit ñi ñu mën a yàq lañu waaye kenn mus sa gis mu def wala mu wax lu wuuteeg bëgg président Macky Sall loolu kenn mënu koo weesu kon ñu ngi lay ñaanal bu baax te di bu baax jërëjëf. barab bi ngeen xamee moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen agsi na fii si dëkk bu sell bi showroom Diaw ko si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxe woon si Matlabul Fawzayni lépp lu gën léppay ak si Touba Diaw ko ma nga ca yoon wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique Pape Diaw Déco fii si Touba 28 jaaxle jeex na da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu liggéeyukaay mu doon totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu méngoo ak jamono Diaw Déco fa muy tibbee foofee la ñi gën a xam ñi gën a ràññee ñi gën a bëgg lu baax dëkk yi gën a mag si àdduna wërngal këpp di jëlee kon daal mbokk yi ma ne ak si ngeen fii si Touba 28 am nañu ay lumière sur toutes le formes ay nouveautés tendance yi nga xamante ni moom la ñuy appliqué partout si yi gën a mag ay luminaire suspendu luminaire plafonnier Touba di nga fekk une large gamme de luminaires et de lampes waaye nag décoration liñ ci mën mëni kenn mënu ko si si mim ay décoration yu méngoog jamono décoration intérieure ngeen am salle wala salon à manger ngeen am jàkka jumaa ngeen bëgg ay lustre wala lépp luy xeet décoration pour barab yooyu bu ngeen amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën a doon lépp lu jëm si wàllu électricité am nañu les grandes marques du monde le grand Ingelec am nañu ay contact ak lépp loo xamante ni daal moom ngeen itteewu sunu ay découpe laser jaw déko moo leen yembal machine yuy tax ngeen mën a li ngeen bëgg jaratul dem su sunu ay machine moo leen génnal ay design yu mucc ay pour seen décoration bu mu mën a doon rampe escalier wala lépp luy travaux sunuy enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si wàllub menuiserie jàppaleen mbokk yi bu ngeen bëggee dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ayib mën ngeen woti 76 224 44 04 wala 76 726 84 84 jaw déko si Touba moo leen gunge